moom day nekk ci eh, ci fi muy demee toilette dafa am ay picc ay taab te day saf du mën a toog comme ni ma koy léegi day dem ba di nàcc ginnaaw yëreem yëpp day taq ñi muy gën a sonal jigéen ñi nga xamante ni dañu ëmboo nekk en état de grossesse ci ëmb grossesse bi hémorroïde daf leen di sonal ñu ci bari ñaan ñi ci des itam bu ñu dem à l'accouchement ndax rectum bi dafa jege trop utérus bi après accouchement li ci bari ci jigéen ñi dañuy am hémorroïde comme ni ma ko waxee tailleur yi ñiy toog toog bu yàgg chauffeur yi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 45 45 wala nga woote ci 77 160 93 93 Géejawaay arrêt Dubalès Kër la min Bara Fall